Tivaouane 2023 ñu ngi fii nga xam ne mbokk yi suivre Sénégal 7 à travers nos différentes plateformes Sénégal 7 point com Sénégal 7 TV ginnaaw bañ leen nuyoo di leen ñaanal jàmm si bis bi nga xam ne moom mooy bis bu sell bi di bisu ki nga xam ne moom mooy sang-sang yi gindi mbindeef ki nga xam ne tey moom moo tax li yëpp xew fi nga xam ne moom mooy si umma islamique bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ko gisee dans les ñu ngi fii nga xam ne moom mooy biir Tivaouane njabootu El Hadj si njabootu ki nga xam ne moom mooy Serigne Touba njabootu ki nga xam ne moom mooy Baye Niass munoo xàmmee kii ak mooy kee munoo xàmmee kii mooy sénégalais wala kii mooy euh, gambien wala kii mooy malien ñoom ñëpp ñëw si guddi gi pour daal di li def li nga xam ne moom mooy jour bu mujj si dixième burdu bi nga xam ne moom lañ ko war a tëj tey di ñaanal ñëpp jàmm di wax képp ku fi ñaan soxla sunu borom daal di koy nangu. nekk si nga xam ne mooy Tivaouane tey mun doon tëjee jour bi nga xam ne moom la ñuy tëj burdu bi mbégte bi lan la si gàmmu gi macha allah macha allah mbégte mi moom foo ko takk weesu ko ndax guddig yonent bi nga xamante ni moo gën ñëpp di géeru géer ñi sallallahu alayhi wa sallam maam Alaaji Malick ko woote waaye maam Alaaji Malick amul guddi dafa jël guddi gi jagleel ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu koy def nag burde bi bu weer wi teroo burde bi commencé ba bisu juróom-ñeenteelu fan ba mu tëj ko noppalu bis sa di te eh, kii fukkeel ba muy muy gàmmu Tiwaawan macha allah gàmm gi danoo juddu fekk sunuy baay ak sunuy maam nekk ci nu ne nu juddu rek nekk ci yoon a seex macha allah muy tariixa bu nga xamante ni tariixa bi moom yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko joxoon seex ah ñu topp ko mu jox ko Muhammadul Haali mu dénk ko maam alpha yi ma yoro maam alpha yi ma yoro mooy ni yaayu alaaji Malick ah ba alaaji Malick daatu juddu jox nañ ko tareexa bi mu yor ko ma alaaji Malick na ma gën a gaaya nun nag ay waalo waalo lan waaw waaw <laughs> lan mooy digle digle burdu bi burdu bi nga xam ne eh, ma Maodo tàmmoon na di ko wax taalibe yi pour ñu koy def ci jamono ji maam Alaaji Maalik daal lu mu digle mooy jaamu yàlla sellal maam Alaaji Maalik léegi daawut sa lekk yàpp ndax maandu ko maam Alaaji Maalik toppal sa diine jàngal alxuraan toppal yonte yàlla Muhammad maam Alaaji Maalik même bu dikkaatoon sax nit nit lii mënu digaloon bu dellusiwaatoon ba ba leen ko sax du ko baax ndax war nañu yonente ba pare te yonente bi nag moo nu woon yàlla ci loolu rek la ñu jóg. sal fi ba léegi demul. demul moom dafa mel ne rido rek moo dox suñu digganteeg moom rido moo dox sunu digganteeg El Hadj ak maam sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu Mouhamadou Mansour ñu bokk ak maam Abdou Ndeye ak Baye ñun nag maam Abdou moo doon suñu sëriñu maam suñu maam. bi jur sunu yaay maam Abdou Aziz moo doon sëriñam daka daan indi Tiwaawan gi mu am fi ñetti weer saa yu bëggee ñibbi rek mu ne ko faama bàyyeegu ma la waaw kon ñun Tiwaawan macha allah am na fi cër. xale yi soo amee kaddu boo nii yi lancé xale yi Sénégal ginnaaw ba jamono xawee jaxasoo te jamono ji mu noon jamono joo xam ne xol yi dina lépp day dem si sunu borom ana ban message ngay lancé li nga xam ne moom mooy ndaw ñi. xanaa delluwaat ci sunu borom te ñaan. te kilifa yi yërëm xale yi ñu jiite dañu war a yërëm xale yi bu ñuy yërëmee rek teg xale yi coon siraatal mustaqim rek daañ fa jaar waaye kilifa bu dëgëree rek njabootam day xëccoog moom kon yàlla nu yàlla may nu su suñu njaboot ci barke yonent bi bu ñu sant avant ñuy sant Cheikh Seydi Hadji Malick nañu sant Cheikh Omar Foutiyou Tall borom Bandiagara moom mi ñaanal maam Faa Wadawel bu am Seex Sidi Hadji Malick Maodo mag ñi ne ñu fekk wuñ nag suñuy jamono moom moo fi njëkk sos gàmmu guddi yonent bi te ba mu sos boobu mi ngi def ay ñetti ginaar mbaa ñaari ginaar léegi nag ay nag la ñuy ay ay ay nag la ñuy rey kon moom moo fi sos guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci yàlla yal na yàlla sutural ko ci barzaqu Cheikhu ñu Tijaani Maodo daal kenn du moom doomu Serigne Babacar Sy boobu te dégg naa ni sax ba ñu ñëwee ba mu làqoo dañ ñëw ci Serigne Babacar Sy di ko laaj naka yow dañu bëgg a def anniversaire u Serigne Babacar Seex Seex Seydi Hadji Malick mun na déedéet Seex Seydi Hadji Malick li mu fi bàyyi woon mooy juddug Yonent bi kon loolu mooy law ba léegi kon ñun fii ku fi ku fi sas ci guddug Yonent bi rek war nga koo gërëme Seex Seydi Hadji Malick burdu bi tey mu doon jour bu mujj bu ñu koy ñu bëggoon xam nga si fàttali ana lan mooy signification burdu si ah, li nga xam ne mooy njabootu El Hadji Malick si waaw ah, Seex Seydi Hadji Malick moom kenn du moom Seex Seydi Hadji kenn du moom yal na ko yàlla fayal moom bu ko neexoon tey jii yor ut burdu boppam mais dafa dafa bàyyi li fi li nga xam ne moom seex seexuñu tijaan yi indi mu indi ko mu topp ko burdu bi daal ay jamono sox am na ñoo xam dañ doon ay burdu mais léegi fa màkka ba jàkkee ibaadu yi ñëpp dañuy burdu ngir yonent kon yal nañ ko yàlla fayal yéen tamit yàlla ah daal mooy julli ba set julli jàpp di werd ci yonent di ñaan ci yàlla lépp li nga yéene sa bopp nga yéene ko jàmbur loolu daal muy digle ñaan ci yàlla yal yalla yàlla barkeel man nag man maay maamu Serigne Babacar Sy waaw man maa tuddee sama bopp Serigne Babacar Sy borom bone carré waaw maa ne si jumaa ji waaw di tàggu yonent bi maa ngi dëkk Tëngéej nag bokk si njabootu El Hadj Ibrahima Sall di tàggu yonent bi waaw ngay wax seex yi pour tëj rek ah lan ngay wax lan ngay wax taaliba seex yi ginnaaw ba guddi gi yànjee ñu gis ñëpp sañse yoo seen di kurus di wéeru laa ilaaha illallaah waaw dañuy waaw moom taaliba seex yi moom noonu la rek waaw ndax sëñ Babacar si borom bone carré bi dañ ko fekk ndar ñu ne ko doomi Roxaya Njaay ji de moom solo rek la fi nekkee mu wax la ne jaamu yàlla dafa bokk ci set avant premier jaamu yàlla dafa bokk ci set moo tax guddi gii daal moom guddi gi yonent bi gii moom wax digg yàlla sangu ba set jàpp ba sel di ñaan ci yàlla loo ñaan si yàlla na ko sunu borom nangu loolu la ñuy ñaan barke Cheikh Al Khalifa. ñu bu wér tey kontaan rek si waaw di ñaan yàlla di ko fekkee ay at yu bari ndax ñun dañ dee ñëw am suñ dayra di dal kër ma Ousmane si Serigne Mbaye si Mansour eh, xalifa bi moo ñu jox day ñu tudda al bir wal isaan noma tuu waaw di Gambik waaw lan mooy ah, trop si guddi gi ñaan yal nañu yàlla taas barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di màggal bés bi di kontaan rek te nekk taalibe rek waaw nekk taalibe rek nekk si seen gannaaw rek di daw di ñëw rek si loolu lañ nekk si loolu la ñoo yëngatu si taalibe seex la ñoo yëngatu di ñaan yàlla alaaji Malick yal nañu ko yàlla feyal waaw yal nañu yàlla boole si njabootam gi barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey ñaanal suñ bi Serigne Mbaye Sy Mansour moom mi ñu jox suñ dayre bi tuddee ko albiru wal isaan number two ñu ngi koo ñaanal yàlla yal na fi yàggate wér jumaa ji yal na ko ibi si jàmm ak salaam ay rakaam toppa ci kawam ñun taalibe yi ñu toppa ci kaw seen kaw ñu ngi koo ñaan ci barke nabil mustafa yal na ñu yàlla defal loolu barke salaatul fatiha ah xanaa ñu gën a ñu ñu gën a farlu ci affaire bi rek taalube seex da ngaa am pas-pas da nga koo wane xam ne yow taalube nga ñu topp tarixa bi li ñu wax ñuy selal waaw ñuy selal li ñu samtax ñu di ko def def suñu wirda yi def suñu wasifa yi di ñaanal suñu njaboot gi loolu lay loolu lay eh, di tel gaa waaw nañ téye si taalib nañ téye si seen taalibe bi bu baax a baax a baax a baax kër alaaji Malick bu baax a baax a du kër alaaji Malick ma day man ah ma day man dama soobu sooboo tànka sooboo yëpp man maa ngi jeex tàkk waaw waaw dama jeex tàkk kii wax suñ kii nag moom mooy suñ sekoon yaay dayra moo toppa si yaay dayra bi waaw ñii ñëpp si dayra bi lañ bokk waaye kii mooy toppa si yaay dayra bi man maay président dayra moom mooy yaay day dayra sekoon yaay dayra moo nekk nii na saani kaadoom tuuti lu tuuti rek mu wax lu tuuti suma ka wax na yëpp bem jeex waaw li wax yëpp mënu ma see deelu waaw mais mel ni xol bi dafa fees bi dafa fees tey kontaan nañ. lan message ah, Gambi Gambian si bari nañ fi ñu baree ñëw dayra yu baree ñëw. waaw di ñaan rek yal nañ fekkee bés bi at mi ñëw tey la nag tëji burda bi waaw tey mooy last day bi waa ñëw nag si tëj bi yal nañ ko fekkee jaama ñaanal suñ njaboot gi ñaanal xale yi àndal ñëpp di ñaanal nag ma Ousmane Sy moom mi nga xam ne eh, sëriñ bi daf ñu boolee moom ñuy dal kiram ma Ousmane si di doomi Serigne Habib si sa ba Gambie waaw moom it koo ñaanal yàlla parce que sëriñ bi moom la ñu booleel taxawaayam si ñun gis nañ ko rafet na torop ñu koo ñaanal moom moo ay rakaam ñoom sëriñ Moulay ak ay soxna umu ak ñoom ñëpp daal ñoom xalifa si ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp daal bàyyi wuñ kenn ak ñoom seex ñëpp la ñoo ñaanal ak ñoom maam faama ak Serigne Diop ñëpp ñu ngi leen a ñaanal ñëpp ñëpp kenn bépp a njabooti El Hadj daal ñu ngi koo ñaanal. macha allah macha allah du ko rafetlu rek du ko rafetlu billahi du ko rafetlu parce que bu moom dafa mel ni ñun si Tivaouane moom tax na ñëpp ñëpp a ngi considéré Tivaouane presque Tivaouane moo dëkk dëkk boo xamante ni ku fa ñëw da ngay boobu ak loo xamante ni boo ñëwee da nga baax Tivaouane waaye nag bu bi bi nga bëgg a dafa mel xol yaa ngi wéet si yaa ngi wéet man sama xol mi ngi commencé jooyaale sama xol mi ngi commencé jooyaale lépp tëjub tëjub bu rëy bi rek moo moo waral loolu noonu bëgg Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te Sidna Muhammad billahi Sidna Muhammad nit ñi dañ ko bëgg te yàlla tax te Sidna Muhammad moo nekk jëmm joo xamante ni nit ñi kon lu gars yi wax rek non Sidna Muhammad ku baax nga gis nii moo gën ci mbindeef waaye bu rëy bi nag. burda bi may suñu ñëw si wàllu burda bi nag man nag bàyyi ko ma dëkk ma Sénégal man Gambie laa dëkk dama ñëw nag pour fere Sidina Mohamed bisam bi parce que que nit boo boo juddoo ba nga kul fekk si fi la sa biir sa biir anniversaire waaye nag commune Sidina Mohamed ñu bi biram rek loolu dafa màgg dafa rek Sidina Mohamed moo nekk commune ma xamante ni ñu bëgg a bëgg du xale du mag ñëpp bëgg a bëgg. lan ngay wax tey ñi taaliba yi fi ñëw pour euh, sàkku si li nga xam ne moom mooy ngërëmal suñu borom. oh boo amu amu ñëw seen fay amu ñëw seen fay amu ñëw seen fay te parce que Sidna Mohamed moo jar nañ nit ñëpp boo bëggee boo bëggee Sidna Mohamed moom yow ma taxa nga yow adduna ma taxa nga Allah moom taxa nga ñi bi taxa ngeen te parce que di di jaay di jërëjëfe Maam Maodo jërëjëfe Maam Maodo Maam Maodo jërëjëfe ma Maodo presque boo tax ñu bëgg si na moom ñëpp moom moon moo moo ñëwoon yoon bi daf ñu moon daf ñu xaleel yoon yi xam nañ yoon xam ne yoon yi fi xam ne fi lañuy jaar ñu dëgg suñu ndànk